kon bokk yi nañu teewlu jote taxawaay bi dafa mel ni Serigne Mor Diop mooy jàkkaarloo ak kenn ci àndandoo àndandoo gu yàgg liggéeyal sëriñ bi liggéey bu yàgg booba nun ñi ay tut tànk lañu mën a luñ sëriñ bi dara ñi ko yàlla booleel it ki ci sëriñ bi ki ci yàlla joxoon am xel mu taxawu sëriñ bi bii taxawaay bay mu ñëw mii rek la woon dem ba xool sëriñ bi mu raf la ciy sàkket ndax sëriñ bi kat ci fii mu mujj ci àddina jëkkewu fi woon dudd na état bu tumurank moom mii mu dem këram jox sëriñ bi léppam buddi ay sàkketam ñëw sampal ko sëriñ bi lii fekke naa ko ak leneen ak leneen ak leneen waaw soor soorgee la dëkkoon am fa kër bu jekk gu neex a noppaloo sëriñ bi sañ ci fii 78 wéet fi lool mu di ko xool ba mu yàgg bi bis ne ko mu ndjay mu ne ko mbacke mu ne ko tukul ñëw fi ñu dëkk muy tuxu ñëw ay bokkam ñen ñi xawa joy jooy defe ne kii day sànku ji rek ndax bokk na fekk na sëriñ bi fi wet na fi tubrank fi ndox yomb fi dara yomb fi ñu nan ko yow dëkk kër gi gu melni dëkkin bu melni nga jëk fi bàyyi di tux waye bobu sëriñ bi loolu ko digal kon ki yag nak sëriñ bi am ak mom ay jaar-jaar kon dafa bi ne taxawaay bii sëriñ moor lañ koo taxawal mu naan sëñ mu njaay mii jaajëf te bam ne koo jaajëf yàgg na kon bismillah ñu teewlu boobu liggéey jërëjëf waaye di fàttali tamit ba tey teew na ci jataay bi sëriñ Dramé bu Tabla Waalo gis nañ ko kon sëñ Ahmadou Xayr mi ngi jébbal Baye Moundiaye Guèye lijaasa bii nga xam ne mooy lijaasu njukkal ak sant ak ñaan waaw kon na ñëpp ñaanal Baye Moundiaye Guèye suñ borom guddal aw fanam te defal ko wér li bu yéene ci liggéeyu sëriñ bi mu àggale ko te ñu ñëpp ñu ànd ko moom te fekke ko incha allah incha allah incha allah